بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وشرف على النبي الكريم وعلى آله وصحابته إلى يوم الدين نياخونا يموي وحني نياخونا دين يموي وحني نياخونا جفه يموي وحني نياخونا سنجافو نكو ورا الموينة في لا بروبليم نك بوي باه يباه واي بوي يقوي jikko yi mooy jikko taalibe ci la nit yàlla deme mu ne jihaadu nafsi waxoon na la ne arkaanu dayda wa shukrun bilqada'i ridan tarku iltifatin ila xaali lbariyati طريقهم عشرة جاءت لوازمها لا بد منها لأسباب الإرادات mooy la téere bi am solo wax na la ne il faut nga jiital usuliya usuliya wax na la ne bokk na ca tuub war njëkk wax na la ne il faut nga ragal ko moom yàlla wax na la itam il faut nga yaakaar ko moom yàlla te foo toll nag fexeel njàqare nekk ci yow te foo toll itam fexeel danga nga doylu fexe dëddu àdduna te boole kook nag mooy tënde ko akku jàmbur te weeru ci yàlla te mën a muñ nag heure bu nekk mu ne jihaadu nafsin te xeex ak sa bakkan nag jihaadu di xeex nafsin ak bakkan bi te mooy lan mooy xeex bakkan mooy tere ko lim bugg xoolal xar bi rek xoolal xar bi rek xar bi bu fekkee ne yaa ngi teg fii dugub te takkuloo ko nu muy bug di def dafay bugg di lekk si rek boo ko dàqee nu muy defaat dafay dellusiwaat boo ko dàqaatee mu def naka mu dellusiwaat nga jël et mag téye teg ci sa wet mu ngi lay xool boo xawee sàggan tuuti rek mu dem ca loolu xam ngeen ko wala xamu leen ah xam ngeen ko moom mooy bakkan nag bakkan nag xam nga xar boo jëlee et fa mu daw boo dooree fa mu daw bakkan nag du def noonu moom du daw booy door booy yéene téye moom li ko mën a arrêté rek mooy nga téye ko. mooy euh, jël sa bakkan xeex ko euh, teg ci mu ne wa shukur nangoo di gërëm xam nga wax na la sabru sabru dañ koy def da nga war a sabru gis nga ko euh, yii lañ tudde maqamatul yaqin yi mu lay tuddal ni wa shukurun mën a gërëm bil qadaa it dogal ridante nangu ko ak jàpp ñun ñi gën a bari yëpp ñun dañuy critiquer yàlla yow yàlla lu tax ያለክ እንድኩ ክሪ ላይፍ አሉ ላይፍ አማ ያፋሉ ወሁም ወሁም ይሳሉ ላይፍ አማ ያፋል ግን ወሩ ቆላይ ወሁም ይሳሉ ወይኛም ለኝ ወራላይ አላ ወተምለና ለኝ ሙን ነካ ደንጋይ ደንጋይ ግርም ቢልከዳይ ሚለ ያለ ዶጋል ሪዳንት ነንጉኮ ኦሁና ዳና ከመይቡ amu fefe mm. mooy rida maqamatu rida duma mm. dem be lu yàlla defat rek neex na la waaw mm. ah, lu yàlla defat rek neex na la fa seydina ibrahima def tarku bàyyi iltifatin di gestu ila xaalil bariyaati ni nit ñi mel ko gis bul gestu nit ñi nit ñi boo leen di gis ci njuum da ngay def xan wi ne mbi nee ne xan wi ne laykee ge xan wi ne ngitin nee ne xan wi ne mbuu loolu boo koy gis doo nit yàlla du gis loolu ba tax gis nga suñu tubaab moom ci boppam noonu la dund suuf yi dëgg nag loolu lay gis xoolul nit lu neex nit xoolu ko moom lu neex yàlla lay xool waaw mooy xool lu neex nit borom bi ko moom moom lay xool moo tax mu ne tarku bàyyi iltifaat yi jëf nit ñi ca la ñuy xalaate ak la ñuy ak la ñuy dund waruloo ko gis tax boo moytul sanga ne ñoom ay dof lañu parce li ko waral mooy ila halil bariyati xool nit ñi taalibe du gis nit du gis nit jàngal naa leen ko ay yoon ma ne la boo bëggee dund ak nit ñi ci normal da mel ni sàmmkat bi nu muy dundee ak ay gàttam gàtt yi laa wax de xam nga gàtt yi duñ tax nga def yenn yi luñ tax itam nga bàyyi yenn yi noonu ngay mel ak nit ñi tar ko intifatin bul gis nit ñi baroog yokkin wala déet mm-hmm. alayhi salatu wassalam yii la ñuy tuddee maqamat al yaqin wala de hmm. mu indi leen ak shurut tariquhumu seen ndoxin asharatun fukk la jaa at ñëw na lawazimu ne taalibe bu nekk dafa war a lamboo fukk yooyu la budda min ha il faut li arbabil iradati képp ku nekk taalibe taalibe bu am pas wax de hmm. waxuma taalibe fu yum fayaat hmm. waxuma boobu de taalibe fuyum fayam bi nga xamante ne dafa romb rek jaarale foofu waxuma yooyu taalibe pire laa wax moo tax mu ne iraada ñu tuddee ko iraada iraada bari na ci yéen Seydina Ibrahima bari na ci gaa yi al murid muridana sadikan la tansa Ousmane séeréer yàlla na la jàppale parce que da nga waral seytaane dafay ñëw ñëw ba coobare boobu nga am li nga bugg mu xañ la ko tere la ko na ci kër gi yàlla mu jamono nag moom mel noonu waaye nit a war a bàyyi xel moo tax loolu nga xamante ne moom mooy sa pas-pas mooy li la tax a jox ci yoon bi léegi bi may ñëw am arbabul iradaati ñi am coobare dafa mooy ñi am lu ñu bugg am na ñoo xam ne boo leen gisee rek da nga xam ne kii dafa am lu mu soxla waaye am na ko xam ne boo ko gisee ci da nga xam ne kii soxlawul buhee de a daawangaa ni taba jom na jomin naa buhee ki bugg dafay mel ni ki bugg bàyyi leen ci xel leen ci xel waaw mbubuy taalibi bu leen ko summi bu leen ko summi de moo tax mu ne la tariquhumu seeni yoon gaay asharatun fukk la Muhammad yaa may dégg loolu yaa may dégg ma jaa at ñëw na lawazimuha ne dafa war fukk yooyu dafa war war ba mu war mu ne la budda il faut min ha mu def yooyu war ci kan mu ne li arba bi ci képp koo xamante ne borom la al iradaati am lu mu bugg ci daara képp ko am lu mu bugg ci daara fukk yi il faut nga ko boo ko defulee affaire bi du dem mu ne fa maqsad amal jubluwaay te dégg ngeen ko ma de leen ko wax toujours sëriñ bi ba fa Birama demee jëli ko mu ne an layin carrément aliment doo fiim dofuma dafa am lu ma soxla yow am na fuñ la teg paa bi nekkatu fa am na fuñ la teg yaa ngi taxaw papa almaami am na fuñ ko teg mooy dañ ko booleeg nijaayam muy papa ñoom faabu laa gisaa moo tax mu ne waxuwa gis nga yéene boobu noonu mooy jubluwaay boobu maa mooy li nga xamante ne yëf di moo lay puus ilaa safari nga mën a jog parce que boo amul yéene doo mën a jog jog bi ngay jog dafa am lu la puus bi nga jog jog boobu noonu mooy tax nga jog dem ca daara waaw moo tax dem leen ca daara ñu bari ci yéen dañ leen yóbbu daara waaye demagul ñu bari dañ leen yóbbu daara waaye demaguñu buñ la yóbboo daara nag boo demee bay mag yaa yóbbu sa bopp moy ne dañ la fi indi nga ñëw tok waaye bo dem min ha bokku na ca dalilu il faut mo am kulay womat il faut mo am kulay womat parce que comme jog nga ngay uti yàlla mooy safar bi il faut nga am ku womat pour nga mëna yegg yalla deful ku jog rek yegg comme ni nga deful ku jog juddu te mënon na ne ku jog juddu mënon na nek di waye yalla defuko jurante mo fi nek ku jóg yëggee itam yàlla defu ko gis nga ko ay chauffeur moo fi nekk ku jóg chauffeur moo lay yóbbu mu ne dalil ba nag mooy ka cheikhin nga am sëriñ bu baax sëriñ boo xamante ne zu futuhaatin yàlla jox na ko xam-xam piir jox na ko xam-xam piir waaye waxul day sëriñ cuuni na waaw noo xamante ne xamul dara waaw yow yi fa yaa ko tane yaa ko gën a xam li yàlla digle ak li mu tere ay def cheikhun góor gu am zu futuhaatin maanaam njàngam bën na bul wut sëriñ boo xamante ni njàngam bënn wala de seet ko ci oto rek oto bo sofoor bu la yóbbu te mënul dawal fu ngeen di mujjee njool accident rek ci ñax bi ci accident ngeen mujj de nekkul de moom rek mooy gaañu de yow moomu yéeg da ngay gaañuwaal moo ut sëriñ bu manul nga ut sëriñ bu man waaw yaa ngi gis yàlla yàlla baaxee gi walhamdulillah waaw moo tax ne la dalilu min ha bokk na sa dalil da ngay ku lay tegtal ku lay tegtal ku lay won yoon bi waaw kooku mooy kan mu ne ka cheikh mooy sëriñ bi sëriñ bi moo lay bu ngi tegtal lii la defal li buñ def li bàyyi li defal li bàyyi li defal li waaw kon la sa diine xamal la sa diine la te walhamdulillah daara ji yéen a ngi jàng kay sëriñ bi jàngal nañu ñun ñëpp wala déet dem rek la ko mu jëw am na faaba si bi wala déet si futuhaat yi ànd ak góor goo xamante ne sëriñ boo xamante ne ah déedéet si futuhaat yi njàngam nag bënn na parce que kenn mënta root ci ndaal mas nga gis ñuy ci ndaal parce que bënnul fan la ñuy roote waaye na kenn du roote ci teen bu bënnul de kàmb ban la ñuy roote teen bu bënn wala du noonu waaw ah, moo tax itam il faut rek fa ngay demee jëli yi itam bàyyi la xel fa nga koy dem jëlee al na yàlla baaxel muy ñaar mu ne wazaadu na nga njoot xam nga fukk la wax mm-hmm. wax na la ñaar mm-hmm. mu ne wazaadu bokk na ca nga am yobbal yobbal bi nga xamante ne moom nga yobbu nag du poos bu fees de waaye wax wa mu ne mooy at tuqaa yàlla mm-hmm. kon taalibe bu ñemee yàlla sëriñ ma nu ko yëgali de sëriñ Balla mu bari bari bari xam-xam boo dajee woon ak Cheikh Abdul Qadir Jeylaani laa wax de du la yëgali sultaanul aarifiin xale bu ragalul yàlla ku ku ko yëgal manul dem manul dem moo tax il faut nga ragal yàlla bul ñeme yàlla bul ñeme yàlla li ngay dégg bàyyi ci xel moo tax la waa faal jeex na léegi ah yobbal yobbal bi nag nekkul leneen ak leneen li ngay am waaye wax woo mu ne mooy at tukaa kon taalibe du ut lu mu am dafa aleyna aleykum asalaamullah wa rahmatullahi wa waaye dafa ut ku mu doon mooy na ragal yàlla muy ñaata Mohamed muy ñaata muy ñett min ha bokk na ca silaahuhum seen ngannaay te ñun dañ ko xeeb lan mooy ngannaay bi ngannaay bi wa huwal wudu'u mooy njàpp taalibe du toog te amul ak njàpp du téye téere te amul ak njàpp taalibe lépp lu muy def defa ànd ak njàpp waaye toog rek affaire bi gis nga ko njàpp li yàqu rek nga toog noonu taalibe ko def taalibe du toog ci àndul ak njàpp bu nekk mu nga njàpp bàyyi ci xel la xaw a jaaxal nag njàpp rek njàpp rek njàpp rek yant bi ne nuurun ala nuuri njàpp ni ne leer la te kuy dox ci yoon nag laaj na gis ay bëtam bëtam bu amul leer du dem sel lay doon dafay laaj ñu téye ci loxo wala de kon moo tax mu ne la min ha bokk na ca te mooy ñeenteel ba mm-hmm. silaahuhum seen ngànnaay lan mooy ngànnaay ba waxoomu ne moom mooy alwudu u njàpp di njàpp ba nga xamante ne yan fi moom mooy dàq an najaasaati xeetu sobe ya taale bi du nangoo sobe sobe du ko nangu waaw da wax naa leen ko fi démb dee leen di solu ba rafet nag am civilisation solu ba rafet waaw bu leen di sol yu ñaaw bu leen di sol yu xotteeku dee leen di sol yu rafet moo tax mu ne allazi yanfi najaasa moom la yàlla njëkk a wax yonente bi ko njëkk wax ci la bokk yaa ayyuhal mudaththirikum lu mu ca teg wa thiyaabaka te dañ la koy wax boo demee ci seen shurut yi nga xamante ne moom mooy shurutu gis nga ka lii laye la koy wax lu na fexe ba bul di fanaan fu am sobe bul di fanaan fu am sobe waaw dox fu am sobe dañ la wax ci wanag bi rek car baatu dëkkam xoolal ma loolu amul ku ko fi def mu ne bokk na ca su daggum ne ñaata maqsadun il faut nga am yéene dalilun il faut nga am dalil ci lay tegtal gis nga ko zaadin il faut nga am yobbal mooy tukka filahum mooy lan alwudo mu ne min ha bokk na ci juróomeel ba asiraaju fa nga am torsu na il faut nga am torsu lan mooy torsu bi mu ne bi zikrillahi jalla wa ala mooy tudd yàlla taalibe bu dul wirdu du yëgg taalibe bu dul wirdu du yëgg ci yàlla parce que da leen di tudd yàlla da di wirdu da leen di wirdu da leen di wirdu la ñoom kousa waaw da leen di wirdu dégg ngeen di jàngal Quran wala déet ah, ku ci nekk nag am na ci ba gën a sawar waaw ah, am na koo xamante ne moom dafa sawar ci jàngal Quran ëllëg yonente bi ne afdal ma qultuhu de li man ma di koy sikkar man muhammad wa nabiyuna min qabli yonente yi ma jiitu di koy sikkaree mu ne mooy laa ilaha illa la sharika lah ne moo gën kalimataani ñaari baata ngoog xafifataani ala lisaani de pour làmmiñ wax ko waaye saqilataani dama ko yenu ca misaan ma gis kopo poids subhanallahi alazim subhanallah bi xam du wax wala de moo ko wax di alquran ñoo gàttal ko ne déet wala zikrullahi akbar hay sikkar moo gën lépp loo fi mën a def sikkar a ko gën yonente firiñ ñu ko bugg leen ma wax leen lu gën jihaad lu gën ngeen ngeen ne sarax lu gën ngeen dem door dokk gaay gaay dagg seen dokk yi ngeen reyanteeg ñoom bugg leen ma wax leen li ko gën te moom la yàlla gën a bugg te moo gën a sell ci li yàlla di jot ci jaamam bu ko wax leen ñu ne ah kay mu ne mooy zikrullah wa azkaha inda ko kalima boobu noonu nuqta sa bàyyi jaay waaw wa azkaha bi gën bi gën yàlla di koy jot ci jaam ndax bëgg leen ma wax leen ñu ne ko ah kay mu ne mooy mooy zikrullah mooy tudd yàlla wala kon moo tax taalibe bi moom bés bu bàyyee kurusam la ilaha illallah yàqu na iblis jot na ko bu yàgg iblis li muy xaar rek mooy mu bàyyi kurus mais na nga waasa kurusal rek fekke nekkul ci tey waaye sëriñ bi gis nga ko nga jubal penku moo ca gën bu ko defee itam nga banque say tànk comme ni ngay julle ko defee itam gis nga ko waaw boole ko nga di koy wax agum besa làmmiñ bi sa nopp di koy dégg loolu ngeen di ciy bàyyi xel del wax besa nopp di dégg bokk na ca mu ne mooy asiraaju lamp ba lan mooy lamp ba lamp taalibe bi ci fukki yim lay waxal de mooy zikrullahi di tudd yàlla jàlla moom mu mag bi ala te kawe na min ha mu de bokk na ca almataya waruwaay ya muy juróom-benneel fukk la xam nga juróom-benneel ba mu ne min ha bokk na ca muy juróom-benneel almataya waruwaay ya taalibe dafa war a am waruwaay parce que ci tukki la nag mu ne lan mooy waruwaay ba ɗi himmaati ɗi yitte aliyaade yitte bukawe kinna sihatu mum alalan wa an takuna mudliyal midmari turiidu fa kun humaman ɗin himmaati la aliyaade bo buge gestu ken waya ñudilay gestu gis nga odeede bo buge bula ken gestu waya yongay gestu ine amal yitte al himma himma himma himma yitte amul lu mu mënul bisu ñëwee léegi ba léegi rek loolu lay wax himma law taalakat himmatu adama ala sirri kaza wa kaza al himmatu kahirat fi jamil aqwaal loolu waxuma ji la yaa ngi kon il faut nga am yitte waaye nekk ci daara yaafu su yambar tayal xaw ma nag boo moytu ngeen ne sëriñ bi daal yoonam bi dafa métti mën nañu jaar fii waaye fii mooy yoon bi de fii mooy boo ñëwee nag bidaatullahi la marchandise am la te képp kuy jaay marchandise yaay wax la ca man booy jaay sa ganaar ñaata nga ci man yow ñaar téeméer almataya waruwaay ya bi himmaatin waruwaay ba nag mooy yitte aliyatin yitte bu kawe na nga am yitte bi nga nekkee ci daara waaye nekk foofu rek yaa buuf boo xëyee doo gont yéene mu ne mooy tax nga mën a jóg dem ñaare mu ne na nga am tegtal mu ne mooy firiñ bi nga xamante ne ci ngay jàngee bi mën a xam la yàlla digal ma ne leen góorgóorlu leen ci njàng lu jar a bàyyi xel bu leen fi nekk rek di liggéey ba mu mooy at tuqa na ragal yàlla bu leen ñeme ñeenteel ba mu ne na nga gis nga ko saxoo di nekk ànd ak njàpp juróomeel ba mu ne da ngay tudd yàlla mooy di sikkar mooy wér di la jox rek juróom benneel ba mu ne yitte bu kawe dafa am ñaar yu ki ci yitte moo tax bu ñu la waxee yitte himma du ñu yem foofu dañ la wax himma tegal la ci aaliyan dafa am yitte boo xamante ne saafila la parce que kii sàcc heure ba mu jog ak pexe ba mu ca am ak nam ca góorgóorlu ba loolu sotti loolu du yitte de waaye leesat himma aaliya lees waaye himma daniya la kon bu la waxee himma mooy aliya mooy sa yitte na nga kawewu na nga na uti lu baax waaye bul yittewoo woo bon xam nga ma la même lekk sax dañ ci am yitte